ñi seetaan seen télévision seen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaanal suñu kilifa gi muy am jàmm rek muy bugaan ñaanal ñi ñu nekkal ndooy Saalih ak Cheikh Abdallah dañuy ñëw ci suñu tafsir booleeg laaj yi ñuy yónni Abdallah yàlla nee na sa nastadrijuhum min xaysu laa yaalamuun bés bu ni nit am lu mu foogul te xamu koon bés bu ni nit dajeeg lu mu xamuloon te foogu koon yàlla dafa bàyyi nit muy dem rek mu programme li muy programme ci moom rek suy buy jot rek affaire bi déclenché mënuloo ci dara sa nastadrijuhum min haysu yàlla yaalamuun léeg-léeg ndoy programme dara dem ba mu yàgg am lu ñëw fànq ko lu bokkul ak lam programme moom su boobaa bul wax ne cëy Iran ne cëy sunu borom xoolal ma ak Iran lii lañu tëral nekke loola neexul yàlla lii xew moo ko neex wa ma tashaa'uuna illaa an yashaa allah rabbul alamin ku doy wàll nee na man li neex ci ngeen di dox li neex ci ngeen di wax lima neex ci ngeen di jëf loo ci man macha am rek la yor yàlla coobareem rek la yor moo tax mu ne sa nastadrijuhum min haysu laa yaalamun léeg-léeg mu dal ci sa kaw ci loo xamuloon ni lii dana am pare liggéey ñu tàggale téléphone bi ne kar nga ne ngay óoyu ñooy la sars tànta sàngam faatu na puut combinaison bi nga sol sa yére liggéeyukaay bi nga sol fi nga ko solee fi nga ko summee ne man kat papa yaay nee nañ diw gaañu na mu ne taalal oto bi gaaw ñu dem te yow nga waxoon ma ne su ma xëyee Iran sa oto laay jubal defaral la ko yàlla ne wax nga li nga bëgg ay tëral naa li ma neex sa nastadrijuhum min haysu laa yaalamun moo tax seen maam Xalifa Ndoy wax am solo xam nga olof dane jaam xamul demam bay xam dikkam am waxewu ko noonu jaam demam la xam waa ah, demam la xam mais xamul dikkam loolu la olof sëñ Babacar ne olof daa juum jaam xamul demam xamul dikkam ndax nit départ nay dem dee ca yoon wa am na wala amul kon xamul demam nit wàññeeku na dee ci yoon yi kon xamul dikkam mu teg ca nag ne boo dee tukkeeti Ablaay yóbbul yére yu doy xaalis bu doy ndax ku xamul sa dem doo xam sa dikk soo yóbboo yére yi doy su benn nii nii baa mu ta salte soo toppaan nga defaraat mu yàqu nga ubbi sa saag jëlaat beneen yére loolu la sëñ Babacar nee na yóbbul xaalis bu doy ñu ne ko pour lan mu ne mën nga paan wara jënd li li paan ti boo yóbbul xaalis bu doy nooy def danga ko fay bàyyi baa nga téléphoné soxna si mu mu envoyé la xaalis nga doog a dem jëndi ko moo tax mu ne yóbbul xaalis bu doy yóbbu yére yu doy jaam xamul demam bay xam dikkam toog naa benn taalibe sëñ Mansour jóge biti réew war a dellu ca réew ma tàggu sëriñ Mansour mu ñaanal ko mu war a ñëw Dakar jël volam dem bitim réew puut puut la duggee ci taatu camion fa la dee yàlla nëbb na ko sëñ Mansour nëbb na ko ko sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun nee na fa may ñëwee doo ko xam day ñëw na rées nga xam ne ñëw naa moo tax ma wax ne jàkk yiñ fi tëjoon ci jamono te tijji nañu ko ñàkk julli yiñ julliwuloon ci jumaa yi te ñu ngi julli jumaa nañu bàyyi xel ndax yàlla est-ce que du du jëflanteeg ñun ci loolu lu mat a bàyyi xel la ñi am xalaat yépp ñu ngi cee xalaat parce que dafa am benn tur bu garaaw bu mu tudd mooy muntaqimun turu yàlla la muntaqimun muy firu muy firi fayukat fayukat waaye nag waxu kañ lay fayu wax na la rekk am naa turam mais kaña waxu la ko mun tax xi mun yàlla la <laughs> mais Ablaye waxu la kaña moo tax mas naa toog di jàngale ci daara sëñ Babacar ñu indi benn jigéen ñu ngi dagg ween deret jaa ngi sotti ko ñu takk ko man nag bu may jàngale ci daara ji am na xale buy toog boo ñëwee moo lay nuyu ne buy jàngale du wax nga toog xaar ma parce que waxu yàlla lay wax du sama waxu bàyyi bi ma paree ma dugg ñoom ci saal bi ñu ne ma dañuy laaj ndimbal ci weenam yi ñu dagg ma ne ko pour ma dimbale la danga may dimbale mu ni ma lu ma lay dimbalee ma ne ko bàyyi sa jooy yi ti wax ma loo nekkee woon Mauritanie parce que yàlla du juum du jaawale te kenn du jox kenn añ bu dul añam man amila saalihan fa li nafsi wa man asa fa aleyha nee ku def lu baax ma jox la ku def lu bon ma jox la loo nekkoon Mauritanie soo ma ko waxul duma la dimbali mu ne ma dama doon cagatu néeg laa